الحمد لله الكريم سلما على استقالي بفرود وسنن asalaamaaleykum wa mbokki jullit yi mbokki taalibe bi yéen ñi nga xam ne yéen ñuy seetaan ci seen émission bi ñu tuddee ku wal mburu tudd dëkk tey ji nag ñi ngi jëm ci dëkk boo xamante ni dëkk bu ñëpp xam la mu di Aliya nekk fii ci gànnaaru Touba di dëkk boo xamante ni ku tudd dëkk bi tudd Alxaaji Fàllu Mbàkke mi nga xam ne moo nekkoon ñaareelu xalifab Serigne Touba waaye ku tudd dëkk bi tamit tudd Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal tey jii nag ñu bëgg a dikk ci dëkk bi fas yéene la xamaleek lan moo di dëkk bi kan mooy borom dëkk bi dëkk bi nan lan ko sance ba dëkk bi ni mu agsee fii loolu lépp fas yéene nanoo ànd fii ci seen site bi ñuy wax sunu actu point com ñu fa yéene ànd ak Thierno Faye dugg ci biir seet li nga xam ne moo xew ci dëkk bi ñu fas yéene leen xamale dëkk bu màgg bu sell bi nga xam ne benn dëkk la ci ba dëkk yi nga xam ne doomi Serigne tubaay yi ñoo ko dëkke woon muy Serigne Fallilou Mbacke biir wan leen lan moo xew ci dëkk bi ak lan lan ñu xamaleel ci dëkk bi kon ñu ànd ak yéen dugg ci biir kër gu mag gi nga xam ne mooy kër Cheikh Mouhamadou Fadal gi fi nekkoon te Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal ci dëkk bi nga xam ne fi la waajee dem fekk waajuram wu tedd wa mooy Cheikh Mouhamadou Fadal fële mu nekk noppaloo kon ñu ànd dugg ci dëkk bi. alhamdulilah alkarim siman ala stixaali bi furudin wa sunan sakartu liano qad saxani li watani bi nafa maaqani waxaadani ilay bi taani min baadi ma sabab taxaani وجرني فيه إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي خزي عن التبعا على الذي من بمراد اقتدى في سر والجري يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان الدين وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير ولا سفيع وآله وصحبه النجوم الخاعر النفوس والرجيم هسا وين اليوم يا وابو خيرك في داريننا أحاب وإنني يا بر يا كريم داين وعن شكرك لا عليم منذ جسبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مشوبا ilayka minka asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki jullit mbokki taalibe yi mufawidan musalliman tey ni leen ko waxee woon ñu ngi fii ci Aliya dëkk bu mag bu sell bi nga xam ne benn dëkk la ci doomi sëriñ Touba yi mu sancoon ko muy Alxaaji Fallu Mbàkke ñu dikk fi nag fekk fi ki nga xam ne moo di sëriñ Bara Fall bokk ci njaboot gi waaye di imaam yi jàkka ji waaye ba noppi tamit bokk di yore daara di jàngale moom noonu leen bëggoon a laaj sëñ Baara yaa ngi fii ci aliye ñu bëggoon a xam lan mooy yi ak diggante boobu nga nekk ñu diggante ñaari was yooyu muy jóge ci jàkka ja dem ci daara ja wala jóge ci daara ja dem ci jàkka ja foofu fan ngeen ci toll fii ci dëkk bi ak yarin week lool asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ngi leen di nuyu yéen mbokk yëpp ñu bokk ñu seetaan waaye di leen nuyu ci dal gi ngeen ñu ci seen kii bu solo bi xam naa nag sa laaj bi nga laaj dañ ciy sawar tontu lool ndax bërëb bi ñu nekk muy Aliya dafa nekk bërëb boo xam ne nii bërëb bu tedd la ndax tur beeg Aliya da koo da koo wane. mu bokk ci dëkk yi nga xam tamit dëkk yu gën a mag la ci Touba ndax bokk na ci fi jiitu woon ndax Aliya gi ni nga xamee Cheikh Amadou Fadal mooy ki nga xam ne moo fi nekkoon ci 48. la ko jox Cheikh Modou Lamine baara ba ci euh, cinquante bi Cheikh Modou Lamine Bara daal koy jël ñu ko jëlee tamit daal yor dëkk bi waaye lu jëm na ci wàllu li nga laaj ci wàllu daara ak wàllu jàkka yu mel noonu mooy ñaareelu dëkk bi nga xam ne ginnaaw bu jumaay Tuubaa jàllee taalibe bokk na ci ndax wax nañ ne lépp li ci jumaay Tuubaa Sëñ Fallu daana bayee fii li ci daan ñor mu ko daan jël daan ko yóbbu ca barab booba ginnaaw ba nag bi loolu jàllee nag ci la benn bis mu ñëw ci Cheikh Moussa Lamine daan na ko fii kat fii jàkk ci taxaw tey jumaa ji taxaw ne ko fii maanaam jumaa jëkk na fi suñ baar tamit ci loolu nag mu daal di jël ay seng daal koy seng seng yooyu nekk na fi lu yàgg lool ba sax may fàttaliku jamono su weeru koor masaana jot Cheikh Moussa Lamine daan na yebal Serigne Jili Mbàkke doomam mu fi daan ñëw daan fi naafileel waa dëkk bi booba sax doon sax dëkk bi sax réygutoon noonu kon loolu tàmbaliment la ci ci wàllu lislaam ni ko ni ko alee doo dunde booba kër yi ñeenti kër la woon wala juróomi kër ginnaaw bi loolu jàllee nag jamono dox jamono dox ba Cheikh Moussa daan bay fii ci dëkk bi di bay di bay di bay ba yàlla suñu dogal mu mu mu jaag na ci la jël ci xaalis bu mu doon bayee daa ci tàmbali jumaa ji mu daal di naal fii ginnaaw bi mu ko tabaxee ba noppi nag suñ boroom daal di dogal mu yegg mu daal di wut ay nit ñoo xam ne ñoo fi taxaw di ci taxawee waxtu juróom ndax la suñ Tuubaa waxoon ne rek na nga def sama dëkkuwaay yëpp mu nekk jumaa ak jàkka wala ñaan googu nag dafa mel ni moom la Cheikh Moussa Lamine Bara daal jëmmal fii ginnaaw bi mu ko defalee nag mu tànn ay imaam yoo xam ne ñoo fi nekk di jiite bu dee lu jëm ci wàllu julli jumaa mu tànn tànnoon Cheikh Ahmadou Rakhim euh, moom mu daan moo fi jiite ba léegi maanaam juma mu tànn nag bu dee julli ay la yu mel noonu sëriñ bu Bousso moo fi jiite julli tabaski ak julli korite man mi di wax a yéen nag man maay ki nga xam ne maa fi jiite maanaam waxtu yi juróomi kon loolu moom mooy li nga xam ne mooy taxawaayu euh, jumaa ji nga xam ne wax dëgg yàlla euh, waa dëkk bi fonk nañ jumaa ji lool ndax saa yu noddee lépp ci ñoom dinañ génn. maanaam ñu joxe maanaam waxtu juróom ci biir jàkka ji bu dee na jëm ci wàllu daara ji na tamit noonu tamit la demee ndax sëriñ baar kenn ku ne xam na ak fonkam alxuraan waaye fonk tamit man tamit njabootug alxuraan moo tax nag euh, li nga ti waxoon ne maanaam euh, ne almadaris xablal musaajid bala ngaa defar ay jàkk da ngay defar daara ba noppi te daara mooy bërëb bi nga xam ne ci la ñuy tàggate ndaw ñi ngeen mën cee génne ëllëg ñu mën a yor diine daara jooju nag ñun ñii yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci la ci la ci la dogale bañ bañ génn ci ñun ba tey jii tey ñu mën a taxaw jàkk ji moo tax suñ baar tamit wutoon daaraam mu mu tàmbali woon ca ngay jóge fa ñëwaat ndaamaatu suñu soir tamit bi nga xamante ne sëñ bi wàcc na liggéey suñu soir tamit dafa jël maanaam loolu nga xam ne moo suñu baara doon doon def ndax suñ tubaab moom aw yoonam noonu la continuer la moom maanaam ku fi nekk rek loo def soo fi jógee si morom day ñëw daal lay wóotu daal di yeggalu la moom nag bi mu taxawoo ginnaaw suñu baar nag ci la daal di jëlaat nag daara ji daal koy dundal yeggale ko di fi andi ñu fi daal jël maanaam mboolem njabootam ak taalibe yu bare bëri ak ñeneen ñi andi leen fi ci daara ji nga xam ne fi la ñuy jànge waaye tamit li ci gën a dooleeku mooy tamit daara ji tamit dafa am ñaar taxawaay ndax dañ fi jàngalee alxuraan kese waaye tamit dañ fi jàngate maanaam lu ñu ci wàllu xam-xam ndax bu dee ci wàllu xam-xam yàlla dogal na ñun ñii ñun ñoo koy teewe ñoo koy ñoo koy ñoo koy jàngalee moo tax bind nañ ci programme moo nekk ni moo nekk ni ñu tiim suñ kaw nga xam ne programme bi nga xam ne ci lañ ci lañ ko tënk nga xam ne lu tolloo ñetti at suñ borom ku ñu dimbale nga tax ko kook ñun mm-hmm. soo yàlla mu la jàngalee mm-hmm. mbooleem xeetu xam-xam yi ñuy jàngale fii rek yëpp dañ ko jàng moo xam fiq la wala mu jëm ci wàllu jëm ci wàllu tax yi lu mën doon rek ba ci sax li ñu tuddee maanaam falsafa ak mantiq yëpp suñu borom dogal na ba ñun ba ñun suñu borom dimbali ba jàng nañ ko ba koy jàngale ci njàngale moo xam ne maanaam wu mu ci la ko loolu lépp kon di dugg moom ci liggéey boo xam ne kon sëriñ Ba tàmbaloon na ko waaye suñu Moussa tamit ñëw di ko yeggale mu jëm ci wàllu euh, daara ji ak ci wàllu lu jëm ci wàllu jàkka ji muy jaam yàlla ndax ñaar yu kese mooy li nga xam ne moo taxoon suñ Tuubaa daan sonn suñ Tuubaa ak sonnam lépp lépp weesuutoon maanaam defar ndaw ñi te ndaw ñi nga defar leen mu ngi tàmbalee ci maanaam daara yar leen daal leen di tarbiya ndax dañuy wax ne seexu tarxiya bala nga ko mën a nekk faaw da ngay jaar ci tarbiya ba noppi te tarbiya nag pour nga am ko nag faaw da ngay jaar ci seexu murabbi kon ñetti yooyu yi nga xam ne mooy seexu yu bi ak euh, ak bi maanaam tarxiya yu mel noonu faaw da ngay jàng ba noppi door ñëw nag door tàgg ñi defar ko waaye tamit doo koy doo ko yeggal su ma subhaanahu wa taala te mi ngi tàmbalee ci ndaw te ndaw nag mooy ki nga xam ne la la yonent bi waxoon rek ndaw moom bu judd lay mel ni ndab ndab lu la ndab lu la maam la koy nekk rek yaa ko ci def bu dee lu baax la ca lay nekk bu dee bu dee sawaama tamit ca lay nekk moo tax lenn ci borom xam yi ñoom dañuy eh, dañuy joxe benn misaal ne pot yooyu nga xam ne moom la xale yi ndaw yi jëfandikoo liir yi suñ ko door a jënd kenn ku ne mën na koy def ndox naan mm-hmm. waaye ñu xale yi bu ñu xasee ba jëfandikoo rek kenn doo ko kéeti kon loolu mooy xale mooy boo boo ci ci ndawam ci nga ko mën a ci nga ko mën a defaree. Mm-hmm. moo tax kon euh, sëñ Baara daara ji noonu tàmbalee woon suñu saa ñu tamit daal ci gën a doxaat ab jéego yokkaat ko defaat fii yëpp nii def ci nekk wut wut ko wut ay jàngalekat yoo xam ne ñoo fi nekk chaque weer wu dee mu mu jël euh, ci ci wërsëgam daal leen jox rek te yàlla rek tax ngir maam wéyal ndigal waajurum Cheikh Mouhamadou Lamine ak Mbacké Fadilou mm-hmm. jërëjëf kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm mbokk yi ni leen waxoon ne dinañ dugg fi tey ci aliya fas yéene leen a xamaleeg aliya yaakaar naa ku dikk ci dëkk bu toll nii xamle daare alxuraan ji nga xam ne moom la ñuy jàngalee alxuraan waaye jàkk ji nga xam ne boo jàngee alxuraan ba noppi di ko pratiquer mooy ngay dem ca jàkk jee di taqoog jàkka na ko sëñ Musaa Ka waxe woon ci sëñ mu ne jéegoom ya du jéggeetu yoonu jàkkaam ca tempam mala xàllaate yoonu lislaam kon ñu ànd nag bu ko defee dugg ci biir kër gi tamit gën leen a xamalewaat ak yeneen jataay yi fi amaat ak barab yi nga xam ne fi la sëriñ Alaaji Mouhamadou Lamine xam ngeen ne du ngeen fàtte ni fii la waaja dem fekk waajuram wu tellu wa dinañ dem ci barab bi nga xam ne fa la waaja woon ak fépp ñu won leen ko incha allah dara du leen ump ci sunu digganteeg Aliya ngeen ànd ak site bi ñuy wax sunu actu point com. mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen a ngi nu doon topp fii ci sunu site bi nga xam ne moo di sunu actu point com tey jii ñu ñëwoon ci sunu émission bi ku wal mburu tudd ab dëkk tey ñu dikkoon ci dëkk bi nga xam ne moo di Aliya di dëkku Alxaaji Mouhamadou Fadal Mbacké dëkk bi nga xam ne mi ngi ko sanc 1948 ginnaaw ba mu mujj jox ko ki nga xam ne moo di doomam ji mu di Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal dëkk bii nag dégg ngeen li ci moo jël kàddu fii dëkk la boo xamante ni bi ko sëriñ bi sancee daf cee waatoon moom ne wax ne dëkk bi bu fekkee du lum ci jëlee mu yóbbuwaat ko ci jumaa ja lu mu fi amee rek wala lu mu fi bàyyee na doon xorom loolu nag moo doonoon dëkk bi mu doonoon tax dëkk bi nekkoon dëkk boo xamante ni dëkku tarbiya la woon waaye dëkku jàngale la woon ñenn ci njabootu Cheikh Mamadou Fadal di ngeen ne fi la ganee àdduna dëkk bi tamit gis ngeen ne am na jumaa joo xamante ni masàllaa ñi ngi jàngale alxuraan ci kër gi dëkk bi moo nekk dëkk boo xamante ni tubaar fakàlla masàllaa ñi ngi ak li nga xam ne moo di brigade boo xamante ni gendarme yi dañu fi nekk ndax dëggante la boo xamante ni ci dëkk yi nga xam ne dëkk yu yu baax taarix la yoo xamante ni ñu bare bari tarbiyewu nañ fii ci njabootu Cheikh Ibrahima Fall kii nga xam ne mooy xalifa général de Baye Fall di Serigne Cheikh Jëmb fii la ko Serigne Modou Moustapha Fall indi woon muy tarbiyewu Cheikh Mamadou Fadal ba dëkk bi ni mu mujjee ci tey jii nag ci loxoy ki nga xam ne moo di Serigne Moustapha Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke dëkk bi tamit ba tey fi xallilu bu ne suba la rajab bis bi tamit xam ngeen ne fii la seex Mouhamadou Lamine Baara Mbacke wàcce dem noppalu ji ca waajuram wu tedd wa mu di ki nga xam ne moo di seex Mouhamadou Fadal kon mbokk yi lii la leen jëlali ci dëkk bi ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm sunu caméraman mu di Thierno Faye ak Cheikh Gueye mi nga xam ne moo koy monte ak ki nga xam ne tamit moo di awa mi nga xam ne moo réalisé émission bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndoon sëriñ naa Njaay moom itamit mu ànd ak Cerno nekk ci son bi moom itamit ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulillahi alkarim salman ala istiqaali bi furudin wa sunan